Sénégal dafa am lu fi nekk balaa ñoo ñëw ci Sénégal nag ñu ñëw ci Afrique muy élection yii fi passé ñu am le kër meurtri mooy Afrique goo xam ne ne Afrique bu métti ci xol la ñun ñuy dëkk Afrique ñun ñu nga xam ne ne sunu deret bi deretu africain la muy deretu nobles loolu dañ ci am lu lu métti ci président Afrique yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi tenté troisième mandat ban toog ci seen réew te ñu am jàppale conseil constitutionnel li nga xam ne waruñ ko woon def ay magu quatre vingt ans fexe ba forcé te waruñ woon bokk ci élection yi fexe ba forcé ba gañe ko xool leen ci réewu sous sous-région bi bépp sous-région muy pays sous-région yi yi nga xam ne dañuy làkk anglais di làkk portugais amuñu yooyu problème muy comme Botswana l'Éthiopie Namibie Afrique du Sud Madagascar Ghana Rwanda ñooñu nga xam ne ne anglais yee leen colonisé amuñ boobu problème seul Afrique de l'Ouest rek ñoo am problème troisième mandat élection par rapport ak yeneen pays un mois de cela dañu dégg le président Botswana mu ne moom dëkk bi nga xam ne moo ëpp jamaa dëkk jamaa la ñëpp xam nañ ko mu woo euh, mu woo bi ne leen ne du ma defati troisième mandat du def troisième mandat deuxième mandat feete naa ko jeexal na ko xam nga ne kooku garmi la ak li mu yore nga xam ne ne jamaa mooy lépp jamaa boobu noonu te nekk ci dëkkam depuis 1966 nga xam ne royaume la woon roi bi nga xam ne ne moom moo fa nekkoon bi mu ñëwee dafa ne dootuma nangu sax royaume dañ koy def régime démocratique ñu élire ko ci jàmm kon biñ ko éliree mu gañe ci jàmm koo ko deful sax troisième euh, maanaam ci loolu la yem ba léegi réew moom di continuer noonu pourquoi nag réew yi nga xam ne ne anglophone lañ ay portugais ñoom ñu nekk ci voie développement par rapport ak ñun Afrique de l'Ouest xam nga kon mooy wane ne ñun sunu njiit yi muy njiitu africain yi képp ku leen yaakaar muy Afrique de l'Ouest dóor nga sa loxo ci ëkk xoolal ay magu quatre-vingts ans di def yu ñaaw yi ñuy def muy bavure policière yi fi am dese yi rey yi yàqate dëkk bi loolu yëpp pour troisième mandat ci ndax nguur loolu dara jaru ko ci àdduna buñ jógee ci Afrique de l'Ouest mooy dañoo jaaxle sax ci africain yi peut-être Mali sax moom jël nañ seen destin en mais ñu ñëw ci Sénégal Sénégal gi nga xam ne mooy moo doonoon ab euh, capital de AOF bépp africain Sénégal nga doon ñëw di fi jàngee sa xam-xam di fi wutee sa métier ci bépp côté l'éducation artisanat élevage pêche lépp fii lañ ko doon jàngee si pour yóbbu ko seen dëkk sous région yi peut-être moo tax sénégalais yu bëri ñu ngi ci sous région yi nekk fa ay kilifa yu mag mënatuñ ñëw Sénégal parce que loolee leen fa yóbboon Sénégal moo doon capitale AEF léegi ñun Sénégal bi nekkoon capitale AEF xoolal depuis 60 ans ñun lan la la ñu mel léegi ñun ñoo gën a dellu ginnaaw ci bokk nañ ci ñi gën a dellu ginnaaw ci Afrique te loolu lu ko waral mooy ay ñàkk dirigeant yoo xam ne ne seen ngëm-ngëm sorewul amuñ le sens du patriotisme bëgguñu réew mi seen bopp lañ bëgg dañ bëgg jëriñoo réew mi te jëriñoo réew mi te jëriñu ñu réew mi loolu nag il est temps pour ñu changer ko nuñ koy changer avec des hommes intègres des hommes intelligents des hommes patriotes comme le président Ousmane Sonko et d'autres personnes yoo xam ne ne ay ndaw lañ am nañ njub bi am nañ ngor bi am nañ gëm-gëm bi am nañ fullaak fayda bi di wax nag Macky Sall lii muy def nii yëpp di ruuma ndaat ak yëpp troisième mandat la du leneen xam nga lu tax ñu ne troisième mandat yow képp ku wax ci yow troisième mandat nga jële ku wax troisième mandat wax ko mu jëm ci yow doo ci wax mais képp ku wax ne mënul nekk rek jëlee nañ la fi loolu lu ko waral mooy li ngay yoot nit ñi xam nañ ko Macky Sall moo fi wax carrément invité journaliste yëpp ñu laaj ko lan nga xalaat ci ministre de l'intérieur mi bokk ci yow muy Aly Ngouille Ndiaye mu wax ak ñëpp di dégg mu ne duma ko fi jëlee fii laa koy bàyyi te daf ko def lu ci kenn mën daf ko def ñëpp di ci teg bët li mu waxoon daf koy def Macky Sall lu ko nit mën a contre mooy am na fulla boo xam ne lu mu bëgg daf koy def kon léegi lu tax réew mi moom lu mu bëgg moom daf koy def ñun waruñ mun a am fulla lu mu wax ne da koy def te nekkul ci yoon ñu mën ko taxaw ne ko doo ko defee doo ko fi defee mais lépp dañ koy bàyyi di ko seetaan te moom am na détermination am na courage am na conviction mais loolu mu am ñu ni dañ ko ci war a fekk ñu ni dañ war a mel ne moom am fulla am fayda am ngëm-ngëm mais bu ñu sàgganee ci moment yi ñu jëm muy élection yi ñu jëm ñu caaxaane ko dine li daloon Ablaye Wade dina dal Macky Sall dañuy nax sunu bopp Macky Sall ku ko bañit ku mu neex ku mu naqadi du cuune te daf ko jaral lu nekk te réew mi lu ko jaral war na ko jaral patriotisme patriote yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci diaspora bi loolu bu amul ñun ñëpp ñu nekk ci opposition beeg ñu nekk ci pouvoir beeg ñëpp dinañ am lu ñu métti te loolu yëpp dara du ko faj muy jom fulla fayda moom moo fi waxoon carrément duma def troisième mandat wax ko mu leer bind ko def ko ci constitution bi ne nul ne peut plus de deux mandats consécutifs c'est fini pour moi débat clos en 2017 moom moo ko wax ñëpp di ko gis mu wax ko carrément ñëpp di ko dégg Mimi Touré wax ci loolu nekkoon kon débat boobu clos na ministre kii nu mu tuddati euh, l'autre bi nekkoon ministre de la justice wax carrément tamit effectivement bu mu euh, moom pare na ci débat boobu noonu mooy loolu clos na waa léegi nan lay colowee ngeen toogaat ba moment bi ngeen taxaw ne di am lu ndaaj li ñuy bëgg a yàq yëpp loolu la mooy na mbir mi nañ bàyyi sénégalais yi ñu def li ñu bëgg mooy lan la constitution bi wax bu constitution bi waxee ne war na mën a def troisième mandat ñu bàyyi ko mu def troisième mandat ci loolu lañ jëm wax gi yëpp loolu la te gis nga ne bés bu ñu dox dooloo ba yóbbu ko foofu conseil constitutionnel moom bu fay dem moom jarul sax ñëpp di xalaat mooy dina jàll te bu jàllee ñëpp am ngëm-ngëm ne dañ koy gagné comme ni ñu defoon Ablaye Wade dañuy nax sunu bopp man je suis pur Sonko et dur di coordinateur am vice coordinateur am du moins bu Pastef bu Médina bu ñu gëmee loolu ne nañ ko fa bàyyi mu def ko bu ko defee te lépp leerul teguñ carte sur la table muy li ñu jëm nii muy le fichier électoral bi mu leer ñëpp teg ci seen bët ñu defaraat lépp lim bëgg dina ko am te bu ko amee kenn dootu ci mën a wax dara parce que nag Sénégal fii élection yàgg na fi am te benn élection mosu fi jaar yoon depuis bi mu nekkee au pouvoir boo xam ne ne ñëpp dañ ne transparent la daf ko gagné pacifiquement amu fi lu dul bu fi Ablaye Wade nekkoon nga xam ne ne au moins lu ko nit contre contre wala lu ko nit bañ mooy yëpp élection yi daan na jaar yoon moo tax ñu doon élection kenn mënu ko saaj moom élection yi fi jaar yëpp gis ngeen ni mu ko doxalee ñi waroon am carte sax électeur ci moment wu élection yi lu ñu leen bindal ay non inscrits non inscrits yooyu nag ñu ci continuer loolu le pire mooy amaat moo tax mu changé waat lépp moo tax lenn lañ mën a def ci sama xalaat ak sama gis-gis mooy bés bu déclaré troisième mandat na ñëpp am fullaak fayda ne ko doo ko fi defee yaa ko waxoon du fi am pacifiquement jarul xeex jarul xuloo jarul yàq jarul def dara pacifiquement ci jàmm ci teey mais nag ci fulla ak fayda buñ ko defut dina ko def te dina ko jàll te nit ñi dinañ ci am déception loolu moom jarul sañu wax parce que bu yeeboon na 9 million wala 10 million faral Sonko wala faral beneen opposant te teguñ carte carte sur la table ba fichier bi leer naññ ba ñu doxal ko nu ñu ko bëgg a doxalee dinañ am regret loolu moom man maa ko wax man kooku moo awma ci sa xel ñaar mais bu ñu tegee carte gi sur la table parce que 9 millions bu ñu te 9 millions nekkuñ tey ci fichier électoral bi dafa mën a gagné wala keneen dafa mën a gagné ñi nekk ci fichier électoral bi ñoom rek ñooy mën a voté te ñooñu ñooy mën a fexe ba nit ñi gagné te élection bi loolu trois euh, bu ñu ne trois euh, trois millions ñoo fa nekk moom mu fexe ba lijjanti cinq cent mille wala un million teg ko à côté yeneen yi mu fexe kolmaco ko ba gañe lu ci nit di mën fekk trois millions fa nekk fekk neuf millions ñoo bëgg Sonko wala vingt millions ñoo bëgg Sonko tamit dafa tax mu gagné réew nañu bàyyi caaxaan gi nañu fexe ba élection yi balaa moo ñëw ñu teg ko ci lu leer mu teg fichier bi mu leer nañ ñu nit ñu am fulla yaa ko waxoon doo ko fi defee pacifiquement jaru xeex jaru xuloo te buñ koy def lenn laa xalaat muy toutes les samdi képp koo xam ne ne yaa ngi ci réew mi yaa ngi ci diaspora bi nga génn sa kër pacifiquement mouchoir rek lañ soxla du montre du lam du dara mouchoir bu weex rek yaa ko waxoon doo ko fa defee génneel ko toutes les yi mu bind yi mu vidéo yi mu écrire lépp ñu génne ko ak vaar yëpp ñu génnee ko yaa ko waxoon doo ko fi defee s'il vous plaît Macky bàyyi ñu yaa ko waxoon doo ko fi defee ñoom ñëpp kenn dootu ci wax parce que ñoo ko waxoon ñoo ko bind mais bu ñu nekkee di laame soo non àdduna amul solo moom moom nañ ko bàyyi rek dañ koy gagné bu ñu demee duñ ko gagné parce que bu demee ba imposé ba def ko xam na bu baax fu mu jëm moom moo xamul ñun ñoo xamul fu mu jëm mais moom xam na fu mu jëm fi mu jëm nag fa lañ ko koy teree yaa ko waxoon doo ko fi defee pacifiquement jaru xëy jaru xulo loolu mooy dëgg mais bu ñu càgganee loolu moom kenn dootu ci am beneen xalaat loolu mooy sama gis-gis ñu jëm ci idri euh, Idrissa Seck Idrissa Seck man dama xamul ñaata Idrissa Seck moo am man moom laa xamul ñaata Idrissa Seck moo am ñaar la wala ñetti Idrissa Seck Idrissa Seck moom moo fi waxoon ci li may laajte xanaa du moom moo fi doon jiiñ Macky sàll 7 milliards Taïwan yi wala du boobu sa Seck wala beneen la moom moom lañ fi waxoon soixante-dix milliards yu jóge woon Israël te ñu ne maître Abdoulaye Wade bi yónni woon ko mu ne ko jël naa denc naa ko ci banque boo xam ne ne duma ko jox maître Abdoulaye Wade lu dul réew mi laa koy joxaat en 2012 waa xaalis boobu moom anamu wala du moom moo ko waxoon damay laajte de moo ko waxoon wala waxu ko woon léegi xaalis boobu anamu tam 2012 defe naa passé na ñu ngi ci 2021 di 2020 ba jëm 2021 léegi xaalis boobu anamu ma ne nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi sénégalais yu ñuy foyee ñun suñu xel yi tooguñ ci bu njëkk nit ñi dañ doon nelaw léegi nit ñi dañoo yeewu di wax tamit directeur journal euh, lii quotidien dafa ne dañ ko invité mu ne Idrissa Seck 30 millions lañ koy jox depuis les élections après les élections moom moo ko wax waa léegi lu tax moom mu wax loolu lu rëy loolu te Idrissa Seck porté wu ko plainte loolu lu tax lu waral loolu mais moom li mu doon woote bu nekkee dëgg la wala du dëgg ñu jiiñ la lu toll nu rëy noonu mais munoo taxaw publiquement démentir ko wala nga porté ko plainte mais ba léegi kenn déggul ñuy wax ah kon am na luy ruut ci am na lu nekk ci suuf loolu ku ko wax ak ku ko waxul am na lu nekk ci suuf moo tax mu ñeme ba léegi waxu ci loolu muy 30 millions yu ñu koy wax directeur journal la ko wax de moo ko bind ne am na ci ay preuve waa ñooñu duñ leen woo wala moom mu wax ne moom def na ko wala defu ko wala ñu ngi ko ko doon jox wala joxu ko ko woon nañ bàyyi sénégalais yi ñuy foyee sénégalais yi léegi dañoo yeewu bokkuñu ak sénégal bu njëkk ba bi ñuy poudre rek di ñuy nelawal léegi beneen sénégal lañ nekk léegi nag loolu réew mi ñooy am fulla fay di jël seen destin en main Idrissa Seck bi mu gañ bi ñu gañe bi Macky Sall gañee deux mille douze bi Omar Gueye Pape Diouf ministre pêche bi biñ ne dañuy dem ci Macky Sall lu mu wax man sama mission yegg na jàppale naa leen ba nga yegg au pouvoir léegi man damay dellu opposé moo ko waxoon wala waxu ko woon waa léegi moom boobu kon kii ban sa sekk la bokk wala moom du même sa Seck man dimbale leen ma réew mi xanaa ñaata Idrissa Seck moo am wala benn la wala du benn loolu yëpp moom moo ko fi waxoon kon léegi tey yow yaay ñëwaat def ci sa programme conseil économique social environnemental yow yaa ne woon nañ ko dissoudre nga def ko ci sa programme ci deux mille dix bi yow kooku yow yaa ñëwaat ñu jox la poste boobu nga jëlaat ko mais kon yow ban ban kii nga ban man man ñu xam nga ñu mel ñuy sama problème mais ñu jàppale woon sa Seck ci campagne bi te woon ne Idrissa Seck mooy le meilleur profil muy ñoom Bougane ak ñeneen mais ñooñu tey lan la ñuy wax réew mi. léegi meilleur profil boobu moom moo ñëwaat defaat nii ne day delluwaat ci Macky Sall même pas deux ans ci élection te def sa programme non am na loo xam ne ne même bu ko bëgg-bëgg maye woon ngor mayewu ko fulla mayewu ko jom mayewu ko patriotisme mayewu ko gis nga nit ngay lekk xeer sax moo gën ngay lekk yenn yi parce que du la du la honoré du honoré sa njaboot du honoré sa famille ba tey munoo wax lu nit mën a dégg loolu yëpp la ko lan lu ko waral ndax alal alal alal ku ko fi amit fii nga koy bàyyi mu neex la mu naqadi la fii nga koy bàyyi kon nañ fexe delluwaat si sunu bopp delluwaat si suñu honneur honneur mooy nit ana di lamin tey fu mu génn ku doomam fu doomam génn ñu ne ko gàcce ngalaama lii la fi sa baay def loolu c'est un honneur ana Kéba Mbaye mu génn fu doomam génn ñu ne ko vraiment yow ku baaxoon ci réew mi nga mais am na fi ñoo xam nañ jóge nañ fi bés bu seen doom génnee fii ci mbedd mi boo moytul ay yet wala ay saaga yëpp a leen fay fekk ndax lan parce que ni ñu yore réew mi ak ni ñu doon doxalee réew mi nekkutoon ci lu lu baax te loolu yëpp lan moo ko waral mooy ñàkk patriotisme réew nit ñi fa nekk ñoo koy defar keneen duñu ko defaral ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñooy defar réew mi ñun ñooy bëgg réew mi ànd ak doole doomu réew mi defar réew mi comme li président Ousmane ko di woote waxuma moo fi gën de mais mun naa waat kenn gënu ko fi te bu réew mi di wax ne ne politique on ne di pas jamais en politique loolu c'est faux on dit jamais en politique loolu ay wax yu waxu kii la rek pour naxasal xel yi jamais en politique amul am na Ousmane Sonko jamais du dem fekki Macky Sall jamais jamais jamais jamais la wax maa ko wax publiquement nañ ko partager jamais du dem parce que kooku am na ngor am na diine am na jullite am na gëm yàlla am na ragal yàlla ku loolu ku ko boole doo def yenn yi ñii di dina kenn xamul lu ñuy nuróol lu la neex ku lu waay wax tey bu subaa mu mel ne ne ñu la ko tegalaatee da ngay ne kii est-ce que moom la woon non loolu lan moo ko jar adduna yàggut nañu moytu adduna yàggu fii dara yàggu fii bañ yu ñaaw yi ñu fiy def ku nekk mën nga tedd am sa sutura am sa teraanga surtout yow yee na ngeen ay milliards yu dul jeex lu nekk def ngeen ko ci réew mi waa léegi loolu doyut ngeen gëm yàlla delluwaat surtout boobu ragal yàlla boog ci yenn yi si seen dund gi boog wala fin de règne mais dara mais ku gën a xiif rek nga dem a kii yéen lii lan la nii ah mais adduna nit ñi kenn du ko kenn du ko kiyee nii doxalee nii daal ñun ñi nit ñi waaru nañ daal nit ñi vraiment dañoo ëkkërant ci sunu kilifa yi ñu jiite ñu jóge ci loolu ci Idrissa Seck kooku moom kenn waxatu ko ñu jóge ci ñeneen ñi muy Aly Ngouille Ndiaye Mimi Touré Amadou Ba Moustapha Diop waa ñooñu lan lañu war a ñëw génn ci politique gu Macky bëgg a ñëw ci opposition wala bëgg a nekkaat feneen ñooñu lan lañ ñu war a waxaat ñan ñan ñooy taxawaat ci publiquement di wax ak ñun ci Macky Sall wala ci opposition ñooñu lan lañ fi war a waxaat nañ waxante dëgg mais huit ans yi ñoom ñoom ak Macky Sall nekkoon di ko ne gongo yaaram kàlla lu mu def noonu la lu mu wax noonu la te loolu ci biir bañ ci nekkee buñ gisee lu dul dëgg war nañ mun a taxaw ne lii du dëgg du yoon maa ngi rappelé wu le loi Aisan biñ ko fi voté y avait un député bu nekk euh, Nioro muy Wakili loi boobu c'est lui le seul laa mosa dégg ci député boobu mu ngi ci donkaasi gi mu ne du ma voté vos lois loolu mooy honneur loolu mooy gor au moins nga nekk ci dara nga xam ne sa teraanga fii la nekk nga mun a ne lii du euh, mbiru askan bi nga génn ci retiré wu loolu mooy dëgg alal jeex na léegi ñoo ñëpp ñu fi jaar ñëpp muy 60 ans yi muy député yi préfet yi maire yi ñoo ñëpp léegi ana seen kii ñu bëri jóge nañ fi ana ñoom Iba Der ñëpp jóge nañ fi ana ñoom Djibo Leyti Ka ana ñoom Ousmane Tanor ñoom ñëpp jóge nañ fi lañ doon def ñëpp si seen euh, bureau yi ñëpp di leen fa fekk léegi kenn fekkatu leen te ñëpp a ngi ci suuf lañ nekkee ci suuf kenn da ko xam nañu ragal yàlla te topp yàlla te doyloo yàlla yàllaa yor nit ñi kenn yoru fi nit ku yaakaar na da yor nit ñi da ngay nax sa bopp na réew mi taxawaat jël sunu destin en mais loolu mooy dëgg bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci Modou Bane Modou Bane muy journaliste man dama ko xam parce que nekkoon nañ journal il est am na ay interview yu bëri bokkoon naa ci ñu ko doon ñu ci doon dem muy Ndiogou Wack Seck journal yi ni muy doxee nit ñi xam nañ ko journal cent franc lay jar publicité nga bëgg di fay location di fay courant di fay ndox te mënoo jaay plus de mille exemplaires même pas dix mille francs wala vingt mille francs ci journal ni muy doxee ni ñi xam nañ ko dañoo bañ a wax rek mais lii réew mi di dox wala ñi fi ibbi journal def ko des maanaam nu mu tuddati ay plume pour dara nit ñi xam nañ ko fii coow lee fi nekk rek mais kenn ku nekk xam nga nu ni réew mi di doxee moom moo fi wax carrément ne Ousmane Sonko dañ ko invité mu ne Ousmane Sonko moo ne président yi fi jaar yëpp dañ leen war a fugé loolu c'est une façon de parler Ousmane Sonko ku xam-xam ne jullit la gor la maanaam mais fugé boobu mooy dañ leen war a jël dugal leen ci saaku mooy système bi ñu baaxul ñu dugal leen ci saaku puus leen nële loolu mooy waxin gi dégg-dégg la laaj moom fa muy waxee ak ñoom fi ñuy déggee ak ni ñuy gisee teg nañ politique bu njëkk beeg bi léegi benn du benn waxee fa muy déggee ñoom bokkuñ ko ñoom ñu ngi ca politique bu njëkk ba di wax ak di rubu ju di labajoog lu nekk ñu dugg ci moom du loolu loolu c'est une façon de parler dañ leen war a fugé mooy dañ leen war a dugal ci saag pousse leen ne la des hommes intègres des hommes intelligents des hommes corrects pour ñu ñëw gouverner réew mi ñaata nit ñoo nekk ci jullit gi te duñu pratiquer dafa tax ñu génn ci réew mi wala dafa tax ñu génn ci diine gi wala dafa tax ñu génn ci diine catholique wala dara te ñu ngi def péché lu nekk ñu ngi koy def te ñu ngi leen koy jéggal ngay baalu yàlla di la jéggal ak yooyu kon léegi bu nañ rey ñëpp rek ñu gars yi commencé non non dafa ne fusée fusée mooy nañ rey ñëpp ba pare suba mu xëy ne dem seeti Ablaye Wade ñu ne loolu c'est pas normal lu tax mu seeti Ablaye Wade Ablaye Wade di kilifa di mag yàgg ci opposant di kilifa ci réew mi di kilifa ci àdduna ñëpp naw ko kooku dina la woon ne la ñëwal seet si ma ngay ne déedéet duma ko wax daf ma ne dama ko ne woon nañ nañ la fusée fusée boobu ak nga dem jëgli conseil fukk yum la ci mën a wax ñaar mënoo ko ci jël muy sa njëriñ waaye nañ bàyyi fontu yi nañ bàyyi caaxaan yi dina ay mënulaa woo rek moo tax nga dem parce que waroo dem nangam nangam loolu wax la ah Ablaye Wade kilifa gu mu toll dina la woo nga ne du dem kum fi woo nga dem kum fi nga dem Macky lu tax mënul dem parce que li mu jot ak li mu yor léegi gannaaw yàlla Ablaye Wade tax looloo tax nit ñi xam ko moo tax àdduna xam ko moo tax ñëpp dégg ko moo tax tey muy doxee nii moo tax bu dul woon Ablaye Wade du am li mu am kon nag nañ bàyyi loolu ñu jëlee fa mu ne moom Modou ne Sonko dañ ko woo Karim daf ko woo jëlul ñu jox ko 10 millions mu jël kon kii xamul lu muy wax woo ko jëlul c'est normal ñu jox ko joxuñ ko coalition jot na ñoo ne dañuy lancer dañuy lancer le don de soi ku am sa ñaar dërëm indil ku am sa fukki dërëm indil ku am sa ñeen fukk indil ku am sa million indil ku am sa 10 millions ñu dañ ñoom ñoo ku nekk yaay jël sa xaalisu bopp dem jox ko euh, coalition jot na léegi nag moom Karim am xaalisam woo euh, coalition ba ne leen lii maa leen ko dugalal Ousmane Sonko moom nekk rek ci coalition ba day taxaw ne déedéet waru fa joxe xaalis wala nangam loolu wax la ñii bàyyi leen caaxaan yi waay 10 millions yi daf ko ko jox ak main en main na ko Ousmane Sonko lii maa la ko jàppale ci élection yi wala lii maa la ko jàppale coalition la ko jox coalition du coalition Ousmane Sonko coalition jot na la daf ci bokk ñu jiital ko nag comme ñu ko jiitalee Pastef comme niñ ko jiitale bés bu fi defee lu mu fa war a def dañ ko fi wax dañ Ousmane Sonko laa wax dañ ko fi ne teg yekk bu naqadi seet keneen ku mérité loolu ñu teg ko ci ba ba muy gis li ñu gis ci moom ak li muy doxalee moo ñu day ñu xool discours am xool passé am looloo tax mu continuer nekk ba léegi muy rester l'homme constant toujours à lui-même mi ñu xamoon daaw ak mi ñu xam ren yëpp benn la muy le président Ousmane Sonko looloo tax nit ñi di ko jàppale bës bu fi defee lu tulee def fii lañ ko ne ñukk ba yekkee mo na xari loolu moo tax mais nekkul ne rek dañ ko topp mel na comme ñu àndul ak xel wala nangam loolu nañ ko seet feneen ñun li ñuy dugg ak li ñuy dox lu leer la lu dëggu la lu am courage moo fi taxaw publiquement défier tout un état te ba léegi kenn indi wu fi preuve nit ñëpp ay wax gu soxor rek lañ fiy wax moo def li am na 1500 terrain 1000 nangam terrain 1000 nangam loolu rek lañ fi kiyee voilà loolu laa amoon lu ma fiy indi di wax ñëpp ñu baal maaq ñu baal ñu àq ñu jëm ci échéance yu am solo na réew mi taxawaat am fulla am fayda réew mi kenn duñu ko defaral ñoo koy defaral suñu bopp bu ñu fexee ba loolu imposé wuñ ko lu dul ne yàlla baax na rek yàlla dinañ won na mbaaxaayam lépp lu nit bëgg danga koy ñafe wuti ko moo tax tey lislaam taxaw fii mu taxaw yonent bi daf ko xeex xeex boobu amatul xeexu jaaseeg yooyu amatul xeexu carte lañ am ak xeexu idée ci loolu la ñuy woo les sénégalais ak les patriotes ñu ñëw ci xeex boobu dooleel la président Ousmane Sonko ba ñu jëm ci élection yi ñu jox ko li mu bëgg ci yii di ñëw muy municipalité yi muy kii parce que buñ ko ko joxul tamit doole gi mu war a amee pour gouverner réew mi wala pour téye réew mi da koy naxasal du ko mun a dëgëral te moment yii lañ ko war a mun a jàppale ba mu li mu yootu mu mun ko def mun ko am ba àdduna yëpp gis ko ñu xam ne am nañ le patriote le euh, le panafricain muy le président Ousmane Sonko di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq wa asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu man la Diagne Solution vice coordinateur Pastef Médina ba beneen yoon ci yeneen xalaat ci yeneen xéewal merci beaucoup merci beaucoup jaajëf jaajëf